bu nga xaymaa ko doo wax ne rek dama ko xal xaymaa bëy boo xam ne bu tiri tawsan la ñu nekkoon kon ñeent fukki bëy muy one hundred twenty tawsan déedéet ndax gétt bi bu ñu demee compte ko muy ñeent fukki xar wala muy ñeent fukki bëy am na ci yu mag yu mën a jar tiri tawsan foo tawsan waaye am na ci yoo xam ne sax mën na jot tawsan dalasi eh. moo tax mu naqadee xiyaas ndax bu jë mbote yi dañ koo kontaale waaw waaye il faut bu ñu xiyaasee bu ñu ne yu mag yi daal xañ na eh. ñeent fukki ba foo ko fekk ma xam ne ci fukki yoo xam ne eh. benn bu ne war naa man man man man tiri tawsan muy tenti tawsan yële moom fanweer yi des mën nañ ko waxal gi ay tawsan wala one tawsan dalasi mu dem ba seventy five tawsan noonu bu ñu ba ci nag itam a waaw njëkk nag lu mu gën a tuuti war naa mën a man eight thousand ba ten thousand dollars hmm. te il faut nga xam fanweeri nag hmm. doora wala génne asaka hmm. fanweeri nag yu itam nag fukki yi rek ñu nekk yu maqañ na yële yu ndaw lañ yële yu màggat lañ waaye fukk mën nga ci am fukk yoo xam ne boo ko calculé benn bu nekk war naa jar fukki junni waaw fukki mën nga ci tànn yoo xam ne benn bu nekk fukki junni wala fukki fukki junni ak juróom loolu dafay dem hundred fifty thousand Eh. boo demee ba ci gëlëm gëlëm ñu ne il faut nga xam juróomi gëlëm mm-hmm. door a mën a génnee asaka te ji nga gëlëm nu mu seeree gëlëm dafaa jël cent mille mm. wala téeméeri junne ay ñeent fukki junne benn benn benn benn gëlëm mm. ah, wala fanweeri junne benn benn gëlëm mm-hmm. te il nga xam juróomi gëlëm asaka door cee war xaritam foog nga xam ñeent fukki xar asaka door cee war il foog dañu war a mandaxante su ko defee nag ki xam xaalis kese ñu mm. nekk ñu dal ko seeralal mm. ne ko yow boo xamee fukki junni rek war na ci mm-hmm. loolu dafa dafa dafa dafa dafa wuute lool dafa mel ni waaw emut daal lool waaw sori wante na te kii xam sax ñu ne asaka warut ci mm-hmm. warut ci juróom ñeent ñu ne asaka warut ci li xam bëriwul kii xam fanweeri bay ñu ne la asaka warut kii xam ñaar fukki nag ak juróom-ñett hmm. ñaar fukki nag ak juróom-ñett tamit du comme moo xar la rek ñeneen fukka hmm. waaw waaw fukka la ñeen fukka waaw naa loolu leer ko ko xiyaase rek seet naka lañ dem si njëyee fi tam waaw wax na waaw bay may il faut euh, nee na leen xar waaw ah, ñeneen fukka gàtt gàtt yi muy xar ak bëy kooku moom boo xamee ñetti téeméeri ñetti téeméeri xar wala ñetti téeméeri bëy benn té benn euh, benn téeméer bu nekk benn bëy jëm kaw. kon hmm. xam nga ñetti téeméer jëm kaw. Hmm. ni nga ko waxee sakale muy bu benn. téeméer su fekkee nag li nga xam dafa dalee nag ci ñeent fukk. Hmm. kon ñeent fukk ya ci la benn war boo xamee ñeent fukki bëy asaka benn benn bëy benn mu ci war boo xamee nag euh, téeméer ak ñaar fukk ak benn moo xam téeméer ak ak ñaar fukk ak benn. wala téeméeri bay ñaar fukk ak benn wala nga jaxase ko muy téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ngaa génnee ñaar waaye ñeent fukk yi benn la téeméer ak ñaar fukk ak benn nga génne ñaar ñaar téeméer ak benn nga génne ñett. ñett bu dee man man ñetti téeméer nag téeméer bu nekk benn. téeméer bu xamee junne gàtt sax. Hmm. fukk fukk ngaa génne. Hmm. téeméer bu nekk benn waaye fi balaa xàgg ñetti téeméer nag boobu ci lañ la wax ne ñeent boo xamee ñeent fukk. nga hmm. génne benn. boo xamee téeméer ak ñaar fukk ak benn. da génne bala nga àgg téeméer. bala nga àgg ñetti téeméer. ñetti téeméer ñetti téeméer waaw waaw boobaa moom ñeent fukki bi benn la. Mm-hmm. boo demee boo xam téeméer ak ñaar fukk ak benn bëy waaye dañ a a boole bu fekkee da ñaar fukki xar ak ñaar fukki bëy mm-hmm. doo wax ne sama bëy yi matul nisaab dañoo boolante xar yeeg bëy mu nekk ñeneen fukk nga génne ci benn mm-hmm. waaw boo mm-hmm. bayee ko nga dem ci nag mm-hmm. nag moom fanweeri nag muy nisaab mm-hmm. feeg xamagoo fanweeri nag doo war a génne doo doo génne waaye boo xamee fanweer nag nga génnee benn yëkk boo xamee ñeent fukk nga génne wëllu ah, waaw ko moom la xam mu yën nga ko nag xar mu yën nga ko boo xamee ñeent fanweeri nag nga génne yëkk boo xamee ñeent fukk nga génne benn wëllu soo xamee juróom ñett fukki nag bu boobaa mën ngaa génnee benn wëllu ak ben yek moom eh. nu génne wax sagam dafa yomb fanweer eh. bu nek yek ñeent fukk bu nek wëllu eh, lu jëti yu bari bari bëri bu neexee ngay compte par ñet di gene hilum tabi yek wala nga génne par ñen fuk di gene wëllu moom muy asakaay nak ba dee ba ci gelem gelem nak xam nga ne bëriwul ay sëtu déedéet déedéet waaw da naka duñ koy dégg fi sa amuñ ko fi waaw dégg mo moo tax ñu dee wax xar béy ak nag waaw yoy rek lañoo dañu leeralal kon yi muy mm, mm, muy nisab bi ni lañ ko wara a génnee kon loolu defe naa boobu leer na. waaw boobu leer na xanaa njëye fi nag fi mu nekk. ah dinañ ci mbay waaw mbay mi. waaw mbay. Hmm. naa leen euh, pepp la ak meññet. Hmm. meññet yam meññet bu asaka war daanaka ñun ay sutu bëri fuñ ko. Hmm. ndax meññetu soraas yii asaka waru ci. meññet bi asaka war muy tàndarma. tàndarma waaw tàndarma ak lu ñuy wax sëb yi resin. loolu daanaka duñ ko de bay déedéet dañ ko fee dee indi. waaw dañ ko fee indee waaye garab bu ñoo sàkk di ko génnee asaka. kon ñun suñ garab bi asaka waru ci. ñun ay koko lañ xam ak ay soraas yoyu asaka war ak banana waye waaye xamuñ tandarma tàndarma nag asaka def ci wor man nañ ko dundé te man nañ ko denc lu yag yag yag nak nak no sabib mom dafa génné diw resin ñun ah, ah, ah, asaka wor nañ waaye ñun amuñ ko kon yi ñoo wax ñun muy pep pep bi waaw pepp pep dal mom asaka war na ci mo xam dugub la mo xam mbokk mbokk la wala maalo la nag asaka muy ku ci xam juróom ñetti barigo hmm. juróom ñetti téeméeri kilo muy muy nisaabam hmm. waaw loolu daal ñëpp muy li gën a siw am na ñuy wax juróom-ñaari barigo waaye juróom-ñetti barigo daal ku ko am hmm. asaka war na ci ni nga ko génnee nag muy fukk bu ne benn boo xasee bu xawee ne yow sa dugub ji wala sa mboq mi wala sa ceeb bi moom xóor na ne dana mal juróom-ñetti barigo léegi nag ngay natt boo neexee ngay takk takk bu ne nga génnee benn boo amee fukki takk mhm. génne benn lañ ko def def nag ñam nañu ñu ko def ci dugub hmm. waaye loolu xiyaasul lool ndax takk yi du xem du mu tax li gën mu doon buñ ko mënoon a bojj natt ko mhm. jël natteekaay di natt di natt par par pot wala mhm. par saako waaw wala di peese par kilo boobu mu doon gën a baax waaye daal fukk bu ne nga génnee benn fukk bu ne nga génnee benn ndegam asamaan fi mu ko tawal waaye su fekkene ne bo xamne boo xam ne nag yow ya ko rosel sa bop wala ya xam bo hol wala di yar ko ñoo di pomper pompe dafay bilu ndox mhm. bu boobaa nag fukk bu ne genn wàll nga génne mhm. kon fukki bi dañ ko xaj ñaa ci digg nga genné benn ba mhm. wa me fukki sa ko nga genné génnee sa ko wa su fekkene taw bi la mom fukki sa ko yo xam nga genné benn waaw ah, fukki sa ko yo xam nga genné benn wa ndegam nisab dana man nisab muy dana am mat juroom ñetti bari go wa su fekkene li nga bay do xam ñetti juroom ñetti bari go bu boobaa nag asaka waru ci. Hmm. asakaay mbay nag moom saa yu ñoree rek da nga war a génne asaka. yéen yaa ngi wax ne or ak uh, xaalis. Hmm. léegi-léeg tam comme takkaay yi jigéen ñi de takkaay hmm. or yeeg xaalis gi xëj na nga am si ay boyet boyet yi dama dee dégg ne loolu tam asaka daf dee war. déedéet déedéet takkaay moom asaka waru ci. li nga xam di ko takkaayoo. asaka waru ci comme gàtt bi yafal la gàtt bi nga bàyyi ci kër gi du ko yafal boobu asaka waru ci. ak matériel bi nga liggéey yi. kenn du ko cegaale. na yi nga xam ne donc mu wulli bàyyee ko ci kër gi pour bàyyee ko yooyu duñ ko kontaale gàtt bi nga yar ci kër gi xar mi nga yar ci kër gi da ko yefal léegi la xam yar benn xar di ko yefal boobu itam asaka waru ci ak aw xaas aw xaas muy lu hëpp dañ la wax ne ñeent fukki xar ci la asaka war boo xam ne juróom fukk fukki ya aw xaas la kenn du génn asaka ba juróom ñaar fukk ba juróom ñett fukk fukk bala ngaa xamee téeméer yëpp benn gàtt mu caa war Eh. fanweer nag ci la si ko war eh. boo amee fanweer ak juróom eh. juróom ba aw xaas lañ ko tuddee muy loo xam ne romb na farata ji taxa ko kuur ci bële loo ca ko génne asaka waaw loolu kon jërëjëf mm. oustaz yaakaar naa loolu leer na mm-hmm. waaw soratul tawba yàlla ngee tudda juróom ñetti catégorie yoo xam ne ñoom lañ ko war a jox mm-hmm. fi moo waxee ne inama sadaqaati lil fuqaraayil wal masakina wal amilina am alayha wa mu alafatu qulubuhum wa fil riqab mm-hmm. mu continuer continuer ba juróom ñettañ waa léegi loolu laa bëgga nga gën ñoo farafancal juróom ñetti nit ñi nga xam ne mm-hmm. ñooñu lañ war a jox azaka mm-hmm. asaka ay satu yàlla moo ko séddaleel boppam wax ne innama sadaqaatu lil fuqaraa i ko waxee wax ju leer la ci ñu jàng bayaan muy wax joo xam ne ju ñu la lil fuqaraay da nga fekk benn laam <laughs> laam googu lañ ko tuddee laamul milk waaw uh-huh. ah, maanaam ayal ko ne asaka yi uh-huh. fuqaraa yi ñoo ko moom uh-huh. ku ko lekk lekkoo sa alal alal jàmbur nga lekk léegi-léegi daan am na xëy dañ ko leeral léegi loo xam ne ñuy jëf njuumte ci nga ah, ko moom sañ-sañ dem jaay alali jàmbur jël xaalis ma léegi lu mu ne ah, am ñaar fukk jox ñaar téeméer jox ci téeméer ne asaka laay séddale génnewul eh, eh. asaka déedéet waaw ah, ndax alali jàmbur yàlla mu ne asaka mm-hmm. euh, miskin yee ko moom mm-hmm. yow kon boo boo jaayee ala boo jaayee euh, asaka bi rek mm-hmm. yaa ngi jaay xale li jàmbur mu ne manam xam xaw ma sañ say ñëw jël sax nag jaay dafa bari sax nit ñi dañ dëgër fit kon dañoo def njëriñ bi rek mm. muy nay rek foog ne mm. benn nag rëy na ci nit mm. waaye benn nag rëyul ci nit jëlal benn naw jox ko miskin waaye xam na ñoo xam ne sax ñoom la ñoo def mu gën a garaaw ñoom ñu ko jëndal seen bopp uh-huh. ñoom ñu jël asaka bi uh-huh. parayisal ko seen bopp jëndal ko seen bopp wanaaw jaay bu neen ñoom lu leen neex la ñoom caaj uh-huh. asaka bi dafa tolloog juróom nawi dafa tolloog fukki junne rek jël fukki junne commencé di séddale ñaaw na ko génnewul asaka déedéet génnewut ñaaw na da nga war a génnee nag jox ko miskin